lépp lu muy def na ko sukkandiku ci li yonent bi waxe ni nii la na lañ koy defee euh, ci li ñu seetloo rawatina ndaw ñi waajur yi nañ leen di tamal jëfandikoo am ndeyjoor looy jëf lu nekk nga boo koy def nga tàmbalee ko ak bismillah ni ko yonent alayhi salaatu salaam waxee dafa bokk ci li ñu sopp boo jàng téere fiq yi lépp lu am ndeyjoor ak càmmoñ boo koy def tàmbaleel ndeyjoor ba ci sax booy ndékki tey ñu bari foofu sax lañu ci juumte dañu ñu ndékki xañ na yor ndékki li doon yoo xam ne yaari jëfandikukaay la mooy mën naa doon kaasu kafe ak leen looy jëfandikoo li sàlleen yi jëfandikoo waaye ñi ñenn ñi dañuy téye kaasu kafe bi seen loxob càmmooñ téye leneen la ci seen loxom di jot te du noonu benn loxo bi ci nga war a jëfandikoo lépp lépp bu dee da ngay naan nga naane seen loxom di joor bu dee da ngay jëfandikoo ca bu dee mburu la nga jëlee sa loxol ndi joor loolu moo di ay teggin te alxuraan da cee wax ay laayam fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa yaqul haa umu qiru kitaabiya inni zanantu anni mulaaqi xisaabiya fa huwa fi ayshatin raadiya fi jannatin aaliya wa tuufaa daaniya kullu wasrabu hani'an bima aslabtum fi ayaami alqaaliya وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي كن لول يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هل لك عني سلطاني خسوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يا نتي يا موسى ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من خسل لا يأكل إلا الخاطئ لم وخ ني جيفانديكو سين تامن ريك غا اي مبوغال يو متي لا مو فاما من اوتي كتابه بيميني فيقول ها ام اقرؤ اقرؤ كتابي غا خاني كون jëfandikoom di li ci di ay tuyaaba kenn xamul lu mu toll kon nañu tàggat suñu njaboot yi ci ñuy jëfandikoo di rawatina mag moo xamante ni da ngay jëfandiku ci sa kanam euh, doom wala ñoo xam ne yaa leen war a jàngal di jëfandikoo càmmoñ dem na ba ci tey boo xoolee boroomi xam-xam lay wax yoo xam ni tey boo leen di seetaan ci ñuy jàngale ci jumtuwaay yees yi dañuy teg ab bidon ndox waaye bu ñu waree jëfandikoo dañuy jël seen loxol càmmoñ loolu kenn mës koo gis. xam nga ki nga xay ne xamut mën naa jëf xañ na loolu sax du da ngay xam ne xamul waaye borom xam-xam di jëfandikoo wala di def loo xam ni ñi ñi xamul moom la ñu di ko seetaan lool doy na waar lool kon dee leen jéem a tàmmal seen bopp di tàmmal seen njaboot di leen jàngal lu ñuy def lu nekk ñu jiital bisimillahi rahmaani rahim bu amee ndi yor ak càmmoñ ñu jiital ndi jor teg ca euh, càmmoñ kon oggi euh, l'usanza parlata di cominciare braccio destro Eh, noi, tutti, tutti, noi, dobbiamo usare il braccio destro eh, per mangiare, per fare colazione, per tutto. E prima di fare qualsiasi cosa, di dire Bismillahirrahmanirrahim e di cercare di usare il braccio destro, dato che il braccio sinistro è considerato un braccio sporco, che lo usiamo eh, per pulirci e per fare i nostri bisogni. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum jërëjëf oustaz ca bayaanu léegi bi rek xanaa liñ ci eh, ñambaas tuut bala ñoo commencé rek mooy li nga doon wax léegi mooy nañuy fexe bay tàggat ndaw ñi ndax am na loo xam ne bu ñëw du la fekk doo ko yëg xamoo kañ lay ñëw te nit ki mën naa dem bàyyi fa lu ne ba mu des xam-xamam bu demee da koy yóbbaale ak lu mu mënti yor tey comme fii maanaam barabu jàngale ak jàngalekat nañ ñu dimbale ba ñuy tàggat ndaw ni maam li nekk ñun ñu di ko def ci ñoom ndax li tax ñuy wax loolu mooy maanaam ñun ñi nekk fii ci ñun ñëpp kenn ku ne ci ñun li ñu gën a bari mooy erreur yi ñuy def ci bitti li koy waral mooy maanaam ñàkk a jàng wala ñàkk a nangoo jàng li ma ciy xuuse foofu di ci artoo mooy am na ñoo xam ne dañuy génn ci bitti di defar lu ay këyit ci yeneen maanaam lu mel ne service yi wala ñi may bañ a tudd seen tur di leen fay 30 euro wala 40 euro def leen ci ndànk ndax ci risque bu rëy nga fi autrement maanaam 30 euros ya ngeen di fay ñu jël seen i document defal leen ko parce que ñu bare jaxase nañ seen entre disoccupato wala cassa integrazione wala assegno nucleo familiare xamuñu luñ leen defal mais li ci gën a bari mooy xam ngeen ne kenn document bu di defar léegi bu ne day utiliser SPID SPID mooy servicio per identificazione digitale bi nga xam ne ñun ñëpp am nañ ko képp ku ci dem ci barab bàyyi fa sa ispit ñu ne la indi nga jox ko fa boo ko fa bàyyee boole ko say photocopie bàyyi ko fa document boo lëggee mën nañ caa def lu leen neex ca lu ñu ca mënta def yow yaay responsable bi parce que mën nañoo jël say photocopie document téye ko fa ne na bàyyi ko fi danaa defal assegno familial nga bàyyi ko fa ñu génn ñu jël photocopie ko jox ko keneen mu dem jënd ca oto wala mu def ca dara te booba ëllëgee ka ko def moom du responsable mais yéen ñi am document yi yéenay responsable parce que nit ñu bari damaa gis ñu yor ay multu yu leen arrivaaral ci agence de l'entrata wala fenn wala ay multu yu leen arrivaaral na leen sa oto dafa dem barab sàngam léegi ñu bindal ko multu yow mosoo dem foofa parce que li ko waral mooy seen document yi ngeen bàyyi ci bureau yi ñu ci def ni leen neex def leen ci ndànk ay ay document kenn du ko kafe boo xasee am te mënoo koo ñàkk da nga koy waggar léegi kon ñu ñëw ci bayaanu tey bi bayaan bi liñ ci bëggoon rek comme jamono juñ toll la nga xam ne dana commencé ci fan yi incha allah muy lu ñuy wax 7 30 bala ñu ñëw ci def cette trente ñuy waxtaane li nga xam ne mooy COUD moo la ñuy wax certificato di dipendente nga xam ne képp kuy liggéey ku ne ci mois de mars bi danañ la ko jox mooy leeral li nga am daaw maanaam bu ñu la joxee COUD at mi ñu la jox COUD bi at mi du ne maanaam at mi nga nekk lañ la jox COUD bi waaye at ma nga génn ma nga liggéey moom la ñuy leeral la nga ca am lépp ci la ñuy bind ca biir la nga am ci fukki weer yaak ñaari yëpp li ñu jublu mooy maanaam nit ki càmbar ko ba xam maanaam li ko wax ne moom nga am ak lim liggéey est-ce que ñoo yemoo kudd yi nag dañoo bari te bokkut am na kudd yoo xam ne moom la wax kudd lavoro dipendente nga xam ne ñu mel ne ñun ñuy liggéey ci détail yi wala ñu liggéey ci agence yi wala ñu liggéey ci coopérative yi ñoom ñoo koy am am bu ñuy wax kudd maanaam da pensionné nga xam ne ñi nga xam ne dañoo nekk pensionné wala ñi nga xam ne dañoo nekk di sukupaato wala ñi nga xam ne dañoo nekk maanaam def reddito demande di cittadinanza ñoo ñëpp am nañ kudd mais seen kudd IMSS lay dekk IMSS nag du leen woo jox leen ko mais ñoom buñ ko soxlaa ñoom ñoo koy estampare ak seen SPID kon li ma doon wax ne SPID obligatoire la kenn ku ne war nga ko mën a am fii nii am beneen kudd bu ñuy wax maanaam kudd maanaam infortune bu fekkee nit ki daa gaañoo fa mu doon liggéeyee liggéey ba yàgg nga gaañoo ñetti weer dellu jiwaat liggéeyaat boobaa da ngay am ñaari kudd ndax da ngay am kudd daal laboro am kudd infortune boo xam ne inayib lay jóge boobaa it yaay dem estamparel ko sa bopp wala nga dem laaj leen ko jox la ko mais ñoom duñ la ko jox donc kudd yi dafa bari léegi maam kudd yi li muy bare bari yooyu yëpp nag il faut nga seet maanaam kudd yëpp xam ne bokkuñu fañ jóge kon ki nga xam ne daa war a def cette traite prime ko li mu war a jëkk xool mooy moom man lan mooy tax may def cette traite est-ce que jar na ma koy def wala est-ce que jarul ma koy def ba noppi su jaree ma koy def léegi naa ko def mais képp koo xam ne li ñu war a bàyyi bàyyiloo xel ci nit ñi foofu képp koo xam ne yaa ngi liggéey lu mel na ngay liggéey ci agence wala ngay liggéey ci coopérative foo amee ñaari kudd wala lu ëpp ñaari kudd ci at mi set traite day daal di inventaire obligatoire ci yow même bu fekkee amoo looy déclaré même bu fekkee amoo njabet na ko suñ morom yi suñ mbokk yi di waxee dañ ma koy fay ci sama bourse paga wala dañ may dindal déclaration loolu lépp amul mais fu nit ki amee lu ëpp benn kudd ci at mi dañ koo obligé mu def cette traite su nit ki liggéeyee ñetti weer def su ko paatoo am na ñaari kudd su ki liggéeyee ci agence bee ñetti weer liggéey ci agence bee ñaari weer liggéey ci agence bee ñetti weer am na ñetti kudd su nit ki liggéeyee ñeenti weer di taa ba mu doon liggéeyee falitu ñu yóbbu am na ñaari su nit ki dee liggéey ba yàgg mu gaañu baaraam dagg mu dem infortunio eh, am na ñaari kudd dégg kudd ci at mi maanaam képp koo xam mois de mars agsi na xoolal ba xam maanaam ci at mi nga weesu loo ci liggéey ak foo ci liggéey nga xool ñaata kudd nga war a am bu fekkee kudd labor la ñu estamparal la ko nga boole yëpp def ko sept trente bu nekk benn redito bu fekkee nanguwuñ la koo jox wala ditaa ba daa fallita wala agence ba nekkatu fa amul problème jëlal sa esprit dugal agence de l'entrata demal fi ñu bind cassette fiscale aria reservato boo demee nga mën a estampare sa kuddu wasalaamaaleykum wa rahmatullah